tey ñu fas indil andil xikma bu amati solo te mooy wéyal dundal weeru koor sunu dundal weeru koor tey ñu fas yéene andi tomb boo xam ne nii kat actualité la bu ñuy dund di phénomène bu bu bu bu bu soof boo xam ne nii nit ñu soof te ñàkk fayda te ñàkk fulla te ñàkk jom te ñàkk warma te ñàkk kersa te ñàkk teggin te bon te yées ñu koy teg muy film yi ñuy wooye ay sketch nga xam ne ni dañ cee taamu weeru koor bu jotee mu mel ni virus télé yëpp di ko jongante télé bu nekk am ci nangam te nee na ñooy dañuy béggal nit ñi bégal nit ñi ci lan nit boo koy bégal danga koy bégal ci biir mbégum yàlla ak yonent bi bu fekkee ab jullit nga te loolu alquran la allahu wa rasuluhu ahaqu an yurduhu in kaanu muminin te yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ci wax na ci hadis ne déeful topp lu neex mbindeef ci lu naqari aji bind ci la taa'ata li maxluqin fi maxsiyati alxaaliq weeru koor it bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne képp ku ci mënta bàyyi waxi caaxaan ak jëfi caaxaan yàlla amul soxla ci sab xiif ak saw mar man lam yadax xawla suure wala amalu bi fa laysa lillahi haajatun fi ay yadax taamahu wa sharaaba yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxaat ne nit dana wax genn kàddu rek ngir reeloo ñami waxal ëllëg dana ci xalangu ci xuri sawaree nangami at te wax yonente bi day ku koy weddi da ne ci àdduna rek di dox mel ni ku am jàmm waaye boo tolloo ci sukkuraat ba mënatoo jóg bokkutoo ci atteb àdduna da nga xam ne ni lépp dëgg la laa yantiqu anil hawa in huwa illaa wahyu yuuha du waxee bànneexu bakkanam lu mu wax yàlla moo ko ko wax film yi ngeen ñu imposé dafa soof te dafa jéggi dayo te dafa ëpp yenn yi ñu koy tuddee ay waxtaani koor ay waxtu ñu koy passé ci tele yi yoo xam ne nii dara lu am ful la duñu ko tegal lu dul lu ñàkk fayda ak góor jigéen ñu nekk di taxawaalu en tant que weeru koor yenn yi lan la ñuy jàngal ak naafiq ay magi jëm yoo xam ne nii dañuy foyee weeru suñu borom wu tedd wi di naan ak lekk ci bëccëgu weeru koor yooyu la ñuy jàngal yenn yi lu ñuy jàngal ay rambaaj di jaxase ay nit yenn yi lu ñuy jàngal ay fen yenn yi lu ñuy jàngal ay fecc am na ci film yoo xam ne ni lépp fecc la ba jeex loolu nag gone yi di ko gis ak ñi nga xam seen alliwa soriwut am ak borom bopp yu woyof yi jàpp ne loolu dëgg la te fekk dara du ci dëgg la amoon ful la te am fayda ci lislaam lépp doonoon ak dëgg ngeen déformé ko lépp ngeen soppi ko ay caaxaan li ngeen def dara du ci dëgg te ku ko ci bàyyiwut bu ëllëgee da nga taseeg sa borom woo weeru koor wi ngeen di ñàkkee war ma ngeen war a bàyyi ñenn yi ak julli la ñuy wane ci weeru koor di ci ñàkkal julli fulla mel ni golo mel ni yow doo doomu aadama sax dafa ñaaw ñenn ñi di ci sàkku ay jigéen ci weeru koor ñaaw na ëpp na dangeen ngeen arrêté ëpp na te yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu na am na waxtu yoo xam jullit bi dafa sàkkare ci moom da cee war a teewal xolam ak xelam ak i cëram ak i xalaatam lépp ci diggante ak boroomam ngir lu mu ñaan yàlla da ko nangu yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ñett ñi yàlla du delloo seenub ñaan mukk ñu ne ko kan mu ne imaam bu maandu ak ku woor bay dog ak kuñ tooñ an abi hurayrata qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi la turaddu da'watuhum al imaamu al aadil wa saaimu xiina yuftir wa da'watu al mazlum rawaahu tirmisi te it sunu borom tabaaraka wa taala dafa wax ci alxuraan yow yonent bi bala ma sama jaam ñi laajee nee leen ko jege laa damay nangu ñaanuk aji ñaan waaye ci condition yu muy nangoo ñaan mooy nga wéetal ko ci sa xol wéetal ko ci sa xel ak say cër ak sa xalaat ak sa lépp wa isa saalaka ibadi an ni fa inni qaribu ujibu daxwata daxi isa daan ñoom nag dañuy tàmm waxtu yi nga xam ne nii ci la nit ko waroon a teewal xolam ak xelam ak lépp ñu indil imposé la ci indil la ci tegal la ci ñàkk fula te ñàkk fayda te weeru dañ ko war a dundal Cheikh Mouhamadul Mountakha hafizahu Allahu wa ra'ah ak nit ñu baax ñëpp nit ñi dundalee weeru koor noonu lañ ko war a dundalee xoolal sëriñ Mountakha li muy doon doon mag day ñëw toog nga xam ne ne jataay bi ku fa nekk ak ku koy bàyyi xel sa xel ak sa xol lépp dafay dellu ci suñu borom tabaraka wa taala noonu ngeen waroon def yéen borom média yi dimbalee ko lislaam waaye nii ngeen di def du dëgg du yoon te it du leen jëme kanam ku ko rëcciwut ci àdduna it bala ngaa fa kashaf naa an ka xita ak fa basaraka al a xadid boo demee ba sa ruu tàmbalee rocceeku nga xam ne ni la ci sa kanam dara umpatu ci te it mënoo koo nettali ndax mënoo wax àtteb àdduna amatoo ko boobaa da nga xam ne ni day caaxaan baaxut caaxaan baaxut te it jàmm yàlla goo mën di dem xalaaqu ruux bi ci nit ki am rek moo ko jariñ spiritualité spiritualité bi maanaam relation spirituelle bi mu am digganteem ak boroomam moo koy jariñ koor gi lan la suñu borom tabaaraka wa wax kutiba alaykum asiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun kon ragal yàlla gi moo ci am solo nee na xar yi ngeen di rey sax ci tabaski deret ji ak yàpp bi man yàlla soxluwuma ko li ma ci soxla mooy ragal yàlla gi nekk ci yéen ba ma tax ngeen koy def lan yenaal allaha luhumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum aj maaka lan la ci wax alxajju ashhurun maalumaat fa man farada fihin al ajja fala rafasa wala fusuq wala jidaal fi l ajji wa ma tafaalu min xayrin yaclamuhu llah wa tazawadu fa inna xayra zaadi attaqwa kon nag yii ngeen ñi wan ngeen war a bàyyi waaye nag nit ñi ñoo war a am fulla ak fayda waxtu yenn yi bu jotee ñu ñu sappe yenn tele yi wala ñu fay ko te sukkandiku ci yeneen waxtu tey déglu wala ñuy seetaat ñi nga xam ne nii kat alquran ak turi yàlla ak xasiida ak tooyal seen xol delloo ko ci yàlla delloo ko ci tuub loolu lañ leen di wan loolu mooy li am li am solo rawatina ñun taalibe yi sëñ Tuubaa yi nga xam ne nii sëñ Tuubaa de dundam gépp ci jaamu yàlla ak liggéeyal yonente bi ci la ko jeexal kon nag ñun kenn waruñu gën a xër ci jaamu yàlla ak liggéeyal sëñ Tuubaa ndax mooy liggéeyal yonente bi moo tax sëñ Bay Jaxate ne ko yàllaa di sab yoon yónneen baa di sab xaritit foo toll yaa ngi liggéeyal kii di jaamu kale xam nañ ne nag du ngeen bàyyi mukk xalaatu leen a bàyyi waaye ñun tamit feeg ñu ngi koy mën duñu noppi mukk dañuy wax ndax li ngeen ñu tekkat ëpp na te ñëpp di ko seetaan arrête dafa ëpp bu leen ñu fontoo ndax li teguwut ci dëgg tiit alal jaru ko xaalis kum jaral ngay ñàkkee sunu borom ak diineem ji teggin di ñàkkee sunu borom ak diineem ji kersa ah di ñàkkee sunu borom ak diineem ji worma bis boo demee bala ngaa dee da ko rëcc boo dee moom waxale ko te it képp koo xam ne nii day yaakaar nga ne la yàlla waxoon du ko def ah yaa ngi nax sa bopp yaa ngi nax sa bopp de Sëriñ Tuubaa noonu na ngeen wattandiku yàlla bu baax ndax qudratu ak ak iraadatu moom rek mooy borom saa bu yëkkatee yaram ba day kenn koy taxaw naa ko déet amut kenn koy taxaw naa ko déet amut waaw nañ nañ nañ teewal suñu xol ak suñuy xel ak suñuy cër ci jaamu yàlla yépp waaye rawatina weer wi rawatina weer wi daara yaa ngi fi njàngkati alxuraan yaa ngi fi waxtaankat yaa ngi fi yu baax yaa ngi fi yëpp waroon ngeen diñu ko won ci yenn waxtu yu guddi yi waaye mosal ngeen ñu ciy def tuuti la ci des lépp guddeek ba bëccëg lépp ay caaxaan la